أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al an'am di jël tey ñaari aaya 91 92 ñaari aay yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróom benn mbir bi ci njëkk mooy kullu man kadaba allaha taala aw ashraka bihi aw wasafahu bi wasfin laa yaliqu bi jalali fa innahu lam yaqdiri llaha haqa qadri sunu borom mu ngi ñuy xamal képp koo xam ne da ngaa weddi borom bi weddi aayam yi weddi yonentam yi weddi téereem bi di quraan yemoo ci lool wala nga taxaw di ko bokkaale ak keneen wala leneen wala moom yàlla tabaraka wa taala nga koy melal melokaan yoo xam ne melalu ko boppam wala yelloowul ak jëmmam jë moom buur bi tabaraka wa taala ku def loolu day kooku na yëg ne joxul yàlla àqam joxul yàlla gëddëm ndax sunu borom subhanahu wa taala buur la boo xam ne nit waru ko weddi ab jullit waru ko bokkaale wala mu koy melal melokaan yoo xam ne méngoowul ak jëmmam jëm moom buur bi tabaraka wa taala képp ku def loolu nag na yëg ne moom joxul yàlla ak xam joxul yàlla gëddëm te jàngoon ngeen xadis ba bam ko ne lan mooy àq yàlla ci ñun mu ne mooy ñu jaamu ko bañ koo bokkaale kon dana yàlla cib jullit mu xam peeg ana yan mbir yoo xam ne bu ci duggee wala mu sóobu ci day weddi yàlla wala ana yan mbir yoo xam ne bu ko defee day bokkaale wala mu xam sunu boroom ana yan melokaan la am ba su koy melal mu melal ko moom yàlla na mu melale boppam mu yëg ne moom yàlla du mbindeef mooy borom jaam ñi moo sàkk jaam ñi tey doomu aadama yi bu ñu amoon pas-pas yu leer yooyu kon yenn wax wala yenn yu ngeen di dégg wala ay jëf yu ngeen di gis kon dëgg-dëgg kenn ci ñun du ci teg bët waaye pas-pas yee yàqu nit ñi xamuñu yàlla jànguñu diine moo tax ngay dégg lu nekk xam nga ab nit ku ñemee taxaw naan yàlla dafa wàcc takk ndigam yor rato di rato te ki ko wax nekk ab jullit dëgg-dëgg kooku xamul dëgg-dëgg kan mooy yàlla kooku dëgg-dëgg réer na ah wala jullit bi taxaw naan yàlla bu fekkee dëgg-dëgg dafa nekk yàlla diwa tax te yàlla bam naan nañ aji dafa ne walillaahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil mu ne wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin baat boobu waru nañ ko dégg ñun waa Sénégal fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla nee na man dama doylu walis mbindeef yi su waa asamaan yëpp àndoon juróom-ñaar waxuma asamaan benn rek juróom-ñaari asamaan yi te loolu na ngeen xam ne asamaan yi juróom-ñaar malaaka ya fa nekk ñoo ëpp nit ñi ndax xam ngeen ne baytil maamuur bés bu nekk ñaata malaaka ñoo fay dugg soixante-dix mille malaaka te suñ duggee duñ duggaat te bés bu nekk soixante-dix mille malaaka dugg fa asamaanu premier bii mas malaaka yi fi nekk ñoo ëpp nit ñi waxuma la ak ñaareel yonent bi nee na asamaan yaa ngi kiic kiic di bëgg a daanu ci kaw nit ñi ndax malaaka yi sabbal yàlla boo boolee asamaan yooyu ci ay mbindeef ay malaaka nga jël jinne yi nga jël doomu aadama yi ñoom ñépp bu ñu jaamoon yàlla jub xocc kenn ci moy ko du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn ñoom ñëpp bu ñu kàccoore woon barawu firawna du wàññi ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn nit ñi bu ñu jaamoo yàlla du yokk yàlla dala ku yaakaar ne boo jullee yàlla day yokk garaat wala boo wooree garaatu yàlla day yokk da ngay nax sa bopp in ahsantum ahsantum li anfusikum lu baax lu ngeen def seen bopp ngeen ko defal kenn defalu ko yàlla ku nekk li nga def sunu julli yi sunu koor yi sunu sunu sunu sunu yu baax yi ñuy góorgóorlu di def amul lenn lu ci yokk nguurug yàlla amul lenn lu ko ci wàññi inna allaha ganiyun anil alamin yàlla ku doylu jaam yi la su jaam yëpp jaamoo yàlla du ko yokk suñ ko moyee du ko wàññi loolu dafa war a leer ci ñun moo tax ñu war a xam ne ku weddi sa bopp nga lor ku bokkaale sa bopp képp ku melal yàlla yeneen melokaan yu dul yamu melal boppam wala yonent yi melal ko ko kooku musiba dal na ko yàlla du mbindeef yàlla du moroom amul ndey amul bàyyi yàlla du nit ba doomu aadama di ko melal di ko jox ay melokaanu mbindeef ah wala def ko benn poupée boo xam ne loo lu ñu jël teg ko ko yàlla du kooku yàlla dañ ko war a yi wekk yàlla dañ ko war a jox gëddëm dañ ko war a màggal dañ ko war di bàkk dañ ko war di kañ dañ ko war di sant dañ koy war a sàbbaal di ko rukool di ko sujjootal moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ñun bu nu lànkale yàlla dañu yëg ne am na mbindeef yoo xam ne ñoo ngi sàbbaal yàlla guddeeg bëccëg wa in min shay illa yusabbihu bi hamdi rabbi wa in min shay la wax amul lenn lu ngeen gis lu dul mu ngi sàbbaal yàlla waaye yéen ñi yéen a xamul ne loolu mu ngi sàbbaal yàlla jàngeen sabbax yi ñaata la sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard du jeex kon boo lànkale yàlla yëgal ni am na mbindeef yoo xam ne ñoo ngi jaamu yàlla di jooy guddeeg bëccëg di ñaan yàlla mu nangul leen allahu akbar wala ñun suñu koor yi ndaw ndawaan yi ñuy def rek ak xiyaam yi ñenn ci ñun jàpp nañ ne yegg nañ bu yàgg ñu ngi jannatul firdaws waaw nga gis ku romb sax ku sàggan ku wooru naan xoola kii safara la jëm wala parce que jàpp nga ne yow mi woor moom texe nga dem nga àjjana ba bare yàlla nangul na la yow sa mbir yëpp baax na loo def non woor naa trois jours taa yi maa ngi xiyaam macha allah ci kanam laay taxaw rek da ngaa war a dugg àjjana ndeysaan salafu saalix ñoom dañ ko daan def ba pare di jooy di ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla nangul am na ci ñoom ñoo xam ne suñ daan jaamu yàlla sax bëgguñu nit ñi yëg ko dañ ko nëbb dañ koy nëbb bëgguñu kenn yëg ko waaw ndax rek daw ngistal ñaareel mooy bayaanu talaa'ubul yahud bi kitaabillah yàlla ngi jàngal tey ci sunu aay yi nekk sunu kanam dañu leeralal yahud yi ni ñuy fowee téere yàlla yàlla yemul ci loolu waaye mi ngi feeñal di leeral lenn ci seeni xabaar ak ay atte yoo xam ne dañ koo nëbb ci lenn ci téere yi ndax lan ndax topp seeni bànneexi bakkan ak lan ndax tànn àdduna ci kaw àllaaxira tànn àdduna ci kaw àllaaxira kon nañu xam ne yahuud yi li tax sunu boroom rëbb leen boole leen ca ñamu mere du lenn lu dul li ñu jàpp téere yàlla di ko fowe ay atte yàlla jàpp ay xabaar yoo xam ne yàlla moo leen ko xabaar jàpp ay atte yoo xam ne ci téere bi la nekk di ko falsifié wa ixfa baadul axar ak nëbb yenn yi ak topp gi ñu topp seen bànneexi bakkan seen bakkan moo leen gën a lépp luñ am yemuñu loolu waaye wa ittibaai shahwaat wa isaari dunia alal axira topp bànneexi bakkan gis nga tey lenn ci jullit yi dañoo jël melokaanu yahud yi di fowe téere yàlla da ngay gis ñu naan la Kaolack mu ngi ci alxuraan waaw nga wax ñu ne la diw turam a ngi ci alxuraan wala dëkk sàngam turam a ngi ci alxuraan wala aaya bi diw la ci yàlla di wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen ma ko gën a xam yeneen koy dégg bis bu nekk di ko gis ay nit taxaw fii ci biir dëkk bi di jël ay aaya di ko jagleel seeni bopp wala ñu koy jagleel seeni mbooloo waaw am na ñoo xam ne dañu jël laa ilaha illallah di ko jagleel seen bopp xam nga laa ilaha illallah bu demee ba nekk sant ay nit tudde ko seen bopp di ko daf ko sant loolu mooy fowe téere yàlla loolu mooy fowe sharia waaye am na ci ñenn ñoo xam ne atte yi la ñuy jàpp di ko soppi wala sax ñu ne atte yi passé na lii jamono ju yàgg la woon waaye léegi instant bi kenn mënatu koo atte bu la ñu tardeel jamono boobu jigéen di muur kanamam wala muy muur yaramam wala wala wala jamono boobu wees nañ ko nous sommes aujourd'hui au septième siècle yooyu la ñuy maye il faut patatata tout tout tout loolu amul ci sharia yoonu yàlla diine yàlla tabaraka wa taala kenn amul ay bànneexam yoo xam ne dañuy njett aayay forcé leen poñe leen indi leen ba ñu tiim sa bànneexi bakkan bi pour aayay ànd ak yow déedéet yow yaay tënk sa bopp njett sa bopp yóbbu ko ci aaya yi dund aaya yi ay aaya yi duñ la fekk si yow yaay fekk ji aaya yi mbokk yi bànneexi bakkan day tax doomu aadama du dund diine nit ndax boo toppee say bànneexi bakkan bu yàggee bànneexu bakkan bi day nekk ci yow yàlla moo lay gënal yàlla loolu alxuraan moo ko wax afara ayta man ittaxaza ilaahu hawa xoolal waa joo xam ne yàllaam mooy bakkanam lu ko bakkan bi laaj mu jox ko ko lu bakkan bi bëgg mu def ko ak lu mu mën a nekk nag bakkan bee ko laaj daf koy def yoonam nekku ci ak lu ko ci mën a fekk baax na loolu tey ñaata yoon ngeen ko gis ah xoolal tey nit ñi ni ñuy sonne chaque jour ma wax leen tey nit ñi sonn ci Sénégal diine sonnalu leen doo gis ci Sénégal ku sonn ñu ne charia moo ko sonnal wax leen ma ko kan la amul kenn leneen loo gis doomu aadama yi sonn rek du charia leneen la ay caaxaan la bànneexi bakkan nit ñee ko woote taaral ko ba mu rafet nit ñi di daw di ko song ñii di raay ñii di fóon ñii di yëy mu ngoog beneen bu gën a doy waar mooy ithaaru dunia alal axira gis nga nit saa yoo jëlee àdduna teg ko ci kaw alaaxira sa àdduna yàqu na képp ku jël àdduna teg ko ci kaw alaaxira dundam àdduna dootul jagati diineem yàqu na tey loolu lañ def mooy dañoo jële sunu àdduna daaxe ko dañoo jël sunu alaaxira daaxe ko sunu àdduna yàlla dana woon démb nit ñu baax ñi jël leen ma ngeen dugal ma ci seeni xol ngeen jël àdduna téye ko seen loxo su ngeen gisul lu ngeen xam ngeen sànni àdduna des ak man man yàlla ñun ñu daal di jël àdduna dugal sunu xol jël yàlla teg ci loxo bi ñu demee ba xamatuñu fu ñu jëm ñu sànni yàlla jàpp ci àdduna ñun noonu lañ def dañoo dëpp affaire bi mooy li ngeen di gis tey nit ñi àdduna rek àdduna rek xoolal lii xoolal kii ah ñëw fi nit ñi di jaamu yàlla ngay da nga koy tabax nit ñi di wax ngay génne ay jaasi ak di dem ay police ak di créer ay problème ana jullit ak xëccoo yàlla xanaa yëguñu ne ëllëg yàlla moom mooy doo dee doonaat suuf si lépp yàlla moo ko moom lépp ci loxoom lay delluwaat ku yebu ci ñun nga teg àllaaxira sa nos gis nga jaami yàlla yi bi ñu bàyyee gëm àllaaxira teg àllaaxira seen nosu bakkan la jaami yàlla yi sànku képp koo xam ne ci ñun yaa ngi bàyyi xel àllaaxira sa dund day jub te àllaaxira nag gi ñuy dégg noonu soriwut de ak a jege boroom xam-xam ba nee na ku xëy yendu ji ku gont fanaan yi ku xëy yendu ji ku gont fanaani alaaxira ka jege diggante xef ak xippi rek nga dem alaaxira yonent bi neen daf leen jege comme seen dàll yi ni mu leen jege fi mu nekk nii bu ñu nee bërët ci ñun fii balaa ngay génn jàkka ji looy njëkk a xalaat du ngeen ma tontu sa kër boo nee bërët looy njëkk a xalaat sa dàll noonu la la dee jege. waaw da nga yor say programme rek waaye yëpp ci loxo yàlla la nekk yàlla moo koy sottil nit su bëggee àddunaam jag day teg àllaaxira ci kanamam chaque jour ñu dégg yàlla buy wax ci alquran aaya ngëm bu mu indi def ciy teg àllaaxira jàng leen alif laam mim zalikal kitaabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil gayb wa yuqimuuna alsalat wa mimma razaqnaahum yunfiquun wallazina yuminuuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik lu mu ci teg lu mu ci teg wa bil axirati hum yuqinuun gis nga chaque jour al'axira jàng leen laysal bir an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al bir man amana billah mu ngo chaque jour àllaaxira yàlla soxee imaan rek àllaaxira la ciy teg pour nga bañ ko fàtte nga bàyyi ko xel ndax moo ngi ñëw wiiri wiiri wiiri wiiri jaari ndaari loo daw daw daw daw bisa ngi ñëw di nga dem àllaaxira taxaw ci kanam borom bi te booy dem doo ànd ak kenn de centaine de millions personnes mën lan laa yóbbu ba ngay yegg kenn du fa des ñëpp ay ñibbisi bi ngeen dundee ba léegi ndax mas ngeen gis koo xam ne dañ ko suul am ko volontaire ne kii sama gaañ la woon xaaral ma ànd ak moom ah pourtant fii nu toog nii kenn ci yéen bu doon dem Italie ñu ñëw ba ci aéroport bi ñu ne ko am mën ngaa yóbbaale keneen fekk mu ànd ak xaritam lu muy def bu ko nee nañ dem day dem wàllu dem gaañ nañ demaale rek day dem wàllu dem ah day dem bu doon États-Unis la day dem bu doon màkka la day dem allahu akbar même bu doon oto sax waxuma sax avion bu doon oto rek benn 4x4 waa ji yéeg ni la yéegal da ngay dugg wala doo dugg kan ngeen gis a gis bi muy dem alaxira mun a gaa yi ñëw leen nit ñi ñëw ñi lay dugal ci bàmmeel sax dañuy génn seen benn tànk benn la ñuy dugal daal ne xoolal wuu xaaral ma teg benn bi ci kaw ma gis lu ma xaw rek ma tëb benn waay dafa gaañu ñu dem rob ko ñëwaat doom ji di xool gaa yi di xool xariti papa yi xool xool ba càgg mu daal ne xariti papa yi waaye yéen est-ce que dëgg-dëgg sama xaritu papa nga noonu ñu ne ko waaw waaw mu ne est-ce que dëgg-dëgg yéen ñi samay xaritu papa nga woon ngeen woon waaye ne ko waaw mu ne lu tax sam papa bi mu deewee amul kenn ci yéen ko volontaire dugg fii te boo mu nekk ci àdduna guddi ak bëccëg yéen a ngi ko wër fu mu dem yéen a ngi ko wër fu mu toog yéen a ngi ko wër lu muy lekk yéen a ngi ko wër fu mu fanaan fanaan ngeen fa tey mu dee amul kenn ci yéen ko volontaire ànd ak moom lu tax benn paa ne ko eh sa yaay moo ñu ko gënoon bëgg waaye mi ngi nii toog demul doo gis ku dee jabar ne damay dem walla mos ngeen ko gis nijaay dama laa bëggoon yóbbaale ma doo gis ku dee doom ne papa yóbbaale ma wala doo gis nijaay ju dee jarbaat ne yóbbaale ma doo gis maam ju dee sët ne ko yóbbaale ma abadan foofu kay dem ba ñëw rek ñu suul ko ngay jooy jooy lu gars yi jàpp sa loxo ne la nañ dem nga tourné topp ku sax waxoo maa bañ dew ma mu nga kon nag loolu rek waroon naa tax nga jaamu yàlla loolu kese buñ la yóbbee ba yegg dañ lay suul ñëpp dëpp kenn du taxaw allahu akbar waaw borom asamaan ak suuf wax ak yow nag yaa abdi yaa abdi yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauuk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu alladi la amut e yow sama jaam nga de yàlla sama jaam la lay woowe e yow sama jaam e yow sama jaam gaa yi suul nañ la bàyyi la fi suñu fi desoon sax nag mu duñ la jëriñ gaa yi même armeel yi ñu yóbboon néew bi ñoom ñëpp buñ fa taxawee duñ jëriñ néew bi lu tax xam ngeen lu tax néew bi fan la ne ah ci biir suuf si ñun fu nekk ci kaw yow yaa ngi ci biir nit ñaa ngi ci kaw bu fekkee ne gaa yaa ngi dund ci biir yow lu ci gaa yi ci kaw xam wala yàlla mu ne walaw zallu maak même buñ fi toogoon sax nag maa nafauka duñ la jëriñ ndax ñoom ñu ngi ci kaw taxaw yow yaa ngi ci biir ñu ngi lay yeew ba nga ne ngodd place boobu barab boobu tëraay boobu pax moomu ñépp a ko war a bàyyi xel ku mu mën a doon gis nga loolu buñ koy bàyyi xel xumb xumb àdduna yi ak caaxaan yi am fi du ñu yóbbaale yooyu boo koy bàyyi xel da ngay xam ne diine méttiwul wala fi nee nañ ko bëgg dara def dara waaw ku bëgg akara da ngay ñeme waaw benn malien da doon jaay maygaam benn waaye ñëw lekk ba suur ne du fay mayga bi génne bolde comme déggul olof nag mu bëgg ko wax ku bëgg akara da ngay ñeme kaani mu ne ko dangaa bëgg akara di ngaa ñeme soos di ngaa bëgg akara di ngaa ñeme soos kon ku bëgg dara da ngay def dara da ngaa bëgg aljanna da ngaa bëgg am yërmande yàlla da ngaa bëgg yàlla kontaan ci yow da ngaa bëgg a dëkk ak Seydina Muhammad loolu tëdd na la du ko may gaa yi bëgg a ceene am ay dënn am ay yeel yu ne këj am ay lu ñuy def ngoon gu nekk yaa ngi leen fekk ñu ngi ànd daw daw daw di yëkkati di kërti kërti ñëw fii lekk yàpp naan fonde lan la booy dama bëgg ceene quoi waaye bu fekkee da ngaa bëgg ceene rek nga dem defi loolu nga bëgg dugg aljanna nga dem tëdd na la ah benn saxaaba da daan tëdd ba guddi mu raay lal bi mu nooy nepp mu ne ko lal mu ne ah mu ne nooy nga tërëp waaye lalu aljanna yi ñoo la gën a nooy mu ne soxna si rafet nga torop waaye urul ayna yi ñoo la gën a rafet ah soo bëggee ci loolu loolu bu dee mu ngi sa xel da ngay nekk jaamukatu yàlla waaye doo nekk làmbatukat waaye caaxaan yi ci biir dëkk bi xumb xumb yeeg wax yu bari yeeg nangam nangam woote yi dul jeex yeeg mbooloo yi du la fëkk ndax xam ngeen ne lii ci réew mi ay caaxaan gese la dara du ci diine dara méngoowu ci ak sharia su ko defee ñu xam ne nit na yëg ne alaxira moom saa yu ko sàgganee ci pas-pasam mooy dundam yàqu na mbokk jullit yi ñetteel bi ñuy jàng tey ci sunu ñaari aaya yi mooy bayaanu fadlullahi alal arab bi inzali hadha alkitabi alazim alayhim bi lugatihim li hidayatihim sunu borom tabaraka wa taala mooy jagleel ay xéewal ku ko neex mooy fekk nit kuy sàmm mu def ko yonent mooy fekk ku amul mu may ko mooy fekk baadoola mu def ko buur noonu muy jagleele ay xéewalam nit ñu ko neex noonu la jagleele xeet wii di ay arab yàlla wàcce ci seen làkk téere bii di alquranul karim alquran làkk bi ko yàlla wàccee ban làkk la arab quranan arabiyan mus naa def benn conférence fii ci benn quartier bu ñu naan Doro aw soriwul dara bi ma paree ndek am na benn waay boo xam ne baas bi fi mu nekk ak bunt këram ñoo jaakaarloo moom ñëwul ci baas bi toog mais mu ngi ci biir këram di déglu bi ñu paree rek mu daal di génn ñoo ne dama am ay laaj ndax man ki doon def conférence bi li mu wax nii man ànduma ci dara waaw waaye xam naa li tax an moom mu wax li mu wax mooy xam-xamam moo bëriwul ndax moom xamul ne alxuraan juróom-ñaari alxuraan la moom mu nekk ci benn alxuraan rek di wax gars yi daal di tëb amoon na benn mbokk tudd Abdallah Maane ne day jóg rek dóor ko keroog waa jooju dañ ko génn dañ ko jàpp ne ko yow kii dafa laaj laajam bul mer bàyyi rek ñu tontu ko gars yi mu ne moom waa ji ni mu laajee loolu du laaju diine xam nga dafa am fu yàlla di wax ne quraanun mubiin ah quraanan arabiyan quraanan ndeke waa ji yooyu la lim daan ne juróom-ñaari alxuraan moo am xoolal ñàkk dégg diine boobu bu yàlla ne def naa quraan quraanan arabiyan mu nekk lu ñuy jàng ci làkku arab loolu est-ce que dafa tekki ne benn téere la wala quraan mubiin waaye da ngay gis nit ñi ñoo koy tey sax dañuy tey teylu waaw wala am ay kilifa yoo xam ne dañ leen a réeral ba ñu alku firil leen loo xamante ne yàlla subhanahu wa taala wàccewul woon noonu alquran sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam firéewul woon noonu quran kon xeet wi di arab yi yàlla moo leen jagleel wàcce téere bii ci seen làkk wàcce téere bi ci seen làkk loolu nag ngëneel la gu leen yàlla defal loolu jarul nit ñi di leen ci mere wala nit ñi di leen ci bañ léeg-léeg nga dégg nit ku taxaw naan waa màkk waa màkk waa màkk leen ngeen naan waa màkk bu ñu wooree dañoo war a woor ñun mënuñu ànd ak waa màkk waaw suñu yoon ci waa màkk at yu mujj yi de ñaari at yi de ñu ngi woorandoo ak waa màkk wala bii nag bii nag weeru koor gi ñan la ñu war a ndool kon xam ngeen ne caaxaan yi ñuy wax fii rek la lii rek fii rek la yem maanaam chaque jour yàlla daf ñuy indil ay dëgg wala léeg-léeg nga dégg ñu naan arab yi gënuñu kenn kenn waxul arab yi gën nit ñi waaye arab yi moom lu ñu leen bañ bañ bañ bañ bañ yëg ne yàlla moo leen defal xéewal kaaba gi fan la nekk maakaay lan lañ bu ngeen di julli yéen fan ngeen di jublu ah dégguma dara de bu ngeen di julli fu ngeen di jublu kon kay bu leen fa jublu lu tax ngeen jublu fa ah mu ngoog ku leen bañ bul fa jublu dama nga jublu feneen yonent bi lan la waaw jeex na alxuraan lan la kon mu ngi noonu yàlla moo leen ko defal waaye nag tekkiwul ne ñooñu gën ngëneel bi ko yàlla di wax natt ko foofu xéewal rek bu leen yàlla defal la yàlla wàcce ci ñoom yonent bi mu nekk arab yàlla subhanahu wa taala def xibla gi mu nekk ci dëkkub arab yàlla def quran nekk làkku arab yàlla moo def loolu subhanahu wa taala ndax wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi bépp yonent bu yàlla di yónni ci ay nit làkku xeet wa la ko yàlla di jox làkku xeet wa tey ji ab yonent bu doon wàcc Sénégal du làkk arab lu muy làkk olof lay wax ndax waa Sénégal olof lañ dégg loolu mooy communication gis nga ñun ñuy génn di dem ci dëkk yi boo demee dëkk bu mel ne Fuuta ci tukulóor ya nga bëgg a ñëw di leen waar di leen jàngal diine di wax ci olof dañ lay xeeb tukulóor boo ko bëggee waar nga dem ba Fuuta bugg ko waar da ngay làkk pulaar comme moom boo ñëwee di wax olof rek dañ naan i jam o macculo arana waajoo yimɓe ay na o dambalo yooyu da lañ lay may moo tax sunu borom subhanahu wa taala moo bind xeet wi moo tax mu ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi amul benn yonent bu mu mës a yónni lu dul bu demee day communiquer ak nit ña ca langue ba nga xam ne moom la nit ña dégg waaw mu ngoog kon looloo tax alquran nekk arab sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla wàcce ko ci arab yi ñeenteel mooy taalimu rasul kayfiyatul xujaj war raddi alal mujadilin wal kaadibin sunu borom subhanahu wa taala mooy ki tàggat yonentam mooy ki ko formé mooy ki ko jàngal pour mu am ay pexe ay yoon yoo xam ne moom lay dagg sante kaccoor yi weddikat yi saay saay si band yi ñu bëgg a taxaw ci yoonu islaam di ko lëndëmal yàllaay ki tàggat yonent bi pour muy daggasante ak ñoom te du yonent yàlla muhammad rek bépp yonent bu yàlla mës a yónni yàlla may na ko kattan pour mu taxaw di daggasante ak ay nitam barki démb ñu ngi woon ci yonent yàlla ibrahim mu taxaw daggasante ak ay nitam ba indi leen ay preuve yu ne weng yu leer naññ Moussa romb na fi mboolem yonent bi ko yàlla yónnee ñëw na di leeral di faramfàcce di dàggasante ak ay nitam yi bëggoon taxaw ci kanamam freiné woote yàlla bi tabaraka wa taala naka noonu la ko yàlla defalee muhammadun alayhi salaatu wasalaam yàlla xamal ko nu muy tontoo gaa yi ñii nga xam ne ay weddikat lañ ñii nga xam ne ñu dëgër bopp lañ wow koŋ taxaw ci kanam woote bi daan ne woote bi du jàll waaye chaque jour li ñuy wax rek mooy nit ñi danañu def seeni pexe ci jéem a freiner kàddu yàlla guddi ak bëccëg waaye kàddu yàlla du mos a fay nit ñi nag am nañu seeni pexe am nañ seeni woote am nañ seeni yoon am nañ seeni tableau yu ñuy baaree waaye terewul yàlla moom li mu bëgg rek mooy am sunu borom subhanahu wa taala wax na ci hadisul qudsi ya abd yow sama jaam anta turid wa ana urid da ngaa bëgg ma bëgg da ngaa soxla man yàlla ma soxla fa in ataytani ma turid ataytuka ma turid soo ma defalee li ma bëgg man yàlla ma defal la li nga bëgg fa in nazatani fi ma urid atba'tuka wa la yakunu ba'da zalika illa ma urid bis boo xëccoog man man yàlla li ma bëgg dinaa la sonal ba say baqate ne bàcc te yàgg-yàgg man yàlla li ma bëgg mooy am wala kenn mënul freiner diine yàlla bi mbokk yi loxo ndax mën na téye vagu géej ah kenn ku nekk ci ñun boo bu buñ paree tafsir nga dem géej su vague bi di ñëw nga jël sa ñaari loxo nga ne da ngay freiner vague yi wala bu jant bi di fenk nga ni da ngay téye ceeñeer yi bu mu egg ci suuf ndax am na ku ko mën waaw kon diine yàlla bi kenn mënu ko téye li coow li di bari bari xeex bi lu muy bari bari diaboliser bi lu muy bari bari diingat gi lu muy bari bari bari bari kàddu yàlla dong mooy féete kaw li yàlla bëgg rek mooy am juróomeel mooy bayaanu illa wa nuzuli alkitab wa hiya alimaanu bih wal inzaaru almukadibin wal mushrikin sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jox illa lan moo tax mu wàcce téere bii di alquran bayaanu wa nuzulu alkitab lan moo tax yàlla wàcce téere alquran du lenn lu dul pour nit ñi gëm zalika alkitab laa rayba fii hudan muttaqin téere bi yàlla nee na benn xeetu sikki sàkk nekk ci njub la pour way gëm yàlla yi kon loolu dafa war a leer nañ ñi ci ñun ne alquran li tax yàlla wàcce ko mooy nit ñi am iman waaye bokk na ci li tax yàlla wàcce ko mooy inzaar mooy xupp xupp soññ ñaax tiital ñi nga xam ne ay weddikat lañ ku weddi yàlla ëllëg yowmal xiyaam boo dee da ngay dem safara loolu garab amu ci kenn mënu ci dërëm ku yaakaar ne am nga benn kilifa diine gu nekk fii wala mu faatu yowmal xiyaam boo dajeeg yàlla day ñëw taxaw ci kanam yàlla ne bàyyil kii da ngay nax sa bopp sunu sëriñ si ak Seydina Ali ku gën a foor ah dégguma dara de Seydina Ali bàyyi ma ngi safara sunu sëriñ si ak yonent yàlla Nuux ku gën a foor dégguma dara de dafa mel ne da ngeen a gëm ne sëriñ si ñoo gën a foor nu lu tax du ngeen tontu sunu sëriñ si ak nu ku gën a foor doomam ak jabaram mi ngi safara sunu sëriñ si ak ibrahima ku gën a foor baayam a nga safara sunu sëriñ si ak muusa ku gën a foor cousin ma nga safara sunu sëriñ si ak luut ku gën a foor jabarama nga safara kon wax jeex na jeex na tak kon ku yebu jaamu yàlla waxuñu kenn bul topp kenn waaye toppal ku lay toppaloo yàlla loolu nga jàng ci laxdari laxdari lañ fa jàng mooy bala borom téere bi di jàngal naan la wa yas alal ulama nga laaj boroom xam-xam yi wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati nabiyina muhammad saa sallam loolu la la wax sooy laaj mu ne laajal boroom xam-xam mu ne booy toppandoo booy roy toppal ku topp sunna loolu la tukuloo naan sada ñaago ñaago dokkoo sada moolo moolo jàmbaar booy ñaan ñaanal ko am booy ñaan nga dem ci ko amul dara di ko ñaan boo xam ne yaa ngi moom yéen a yem doo am booy làqatu nga dem fekk tappet boo xam ne yaa ko tane nga nëbbatu ci ginnaawam ñu ne booy ñaan ñaanal ko am booy làqatu làqatul ci ginnaaw jàmbaar waaw sooy laaj ci diini koy laaj alors Sénégal nag léegi ñëw yoon xam-xam lañ koo laaj mu ne waaw man de yaakaar naa da ngay def conférence par benn waaye ñoo jël micro bi naan man yaakaar naa ne nii lañ ko war a defee wala yaakaar naa ne au lieu mu ne la yàlla nee na yonent nee na te dinaa ñëw ne ah man de yaakaar naa yaakaar naa lañ ci teg diine yaakaar naa wala nga dégg ñu ne waa ji waa ji moo ko wax moom yàgg naa ànd ak sëñ bi juróom fukki at mi ngi ànd ak sëñ bi boo ànd ak sëñ bi te jàngul nag xeer yàgg ci géej day tax mu nekk jën jëlal xeer nga tëmbal ko ci géej gi nga takk ko buum 50 ans nga ñëwaat nga xëcc la fay fekk yàgg yàgg ànd ak sëñ bi te jàngoo taxul nga am xam-xam. soo bëggee am xam-xam da ngay jàngi man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira fa alayhi ilmi wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin soo bëggee àdduna da ngay jàngi ngay uti xam-xam soo bëggee alaxira da ngay uti xam-xam soo bëggee ñaar yëpp àdduna ak alaxira dama nga uti xam-xam soo bëggee xam-xam dama nga jàng Qur'an soo jàngee alquran nga xam sa borom soo xamee sa borom nga woo nit ñi jëme leen ci sa borom loolay wax ci waaye damaa bëgg àdduna dem tëdd di nelaw doo dem damaa bëgg alaaxira nga tëdd di nelaw doo dem àdduna ku ko bëgg da ngay jàngi waaw gis nga tey ñi nga dégg ñu naan ingénieur ay docteur ay ay ay lan lañ def dañoo jàng ñi nekk ay pilote ñi nekk ay nangam ñi nekk nangam ñi nekk nangam ñi nekk nangam dañoo jàng soo bëggee àdduna da ngay dem nga jàng waaye boo bëggee alaxira da ngay dem nga jàng kon illa gi tax yàlla wàcce ci ñun Qur'an mooy ñaari mbir bi ci njëkk mooy ngëm yokk ñi gëm yàlla pour ñi gëm yàlla seen ngëm yokk waaye pour ñi weddi yàlla yàlla xupp leen duut leen baaraam ba ñu xam ne seen weddi gi ak seen kàccoor yi ak seen dëgër bopp ëllëg fu ñuy mujje du baax mbokk yi juróom-benneel bu ñuy jàng tey ci sunu aaya yi mooy al imaanu bil axira sababun li kulli xayr wal kufru bihi sabab li kulli batil wa char al imaanu bil axira gëm alaxira li ñu doon wax léegi gëm alaxira jullit def alaxira ci xelam def ko ci xolam buy tëdd njaganaayoo ko suy yeewu yeewoo ko suy génn génn ak moom suy delsi delseeg moom nee na sabab la li kulli xayr mooy tax doomu aadama nekk ci yiw nekk ci baax parce que lépp looy def boo ci xalaatee àllaaxira nga rafetal loolu sooy liggéey boo ci xalaatee àllaaxira rafetal liggéey ba booy jaay boo ci xalaatee àllaaxira njaay ma rafet sa digganteeg sa soxna boo xalaatee àllaaxira sëy bi rafet sa digganteeg say doom boo ci xalaatee àllaaxira ëllëg yar bi rafet lépp looy def sa digganteeg say dëkkandoo boo ci xalaatee àllaaxira dëkk bi rafet dëkkaay bi rafet waaye gis nga tey li tax mënuñu jag parce que àllaaxira gëmuñu ko non àllaaxira non garaawul ah non got naan di tëlëg quoi day baal ñëpp quoi gars yi ñoo soxor rek mais yàlla waxul kenn dara quoi yooyu de la gars yi di maye bara ñu ne got naan di tëlë non daf ñuy baal quoi yooyu de la gars yi di maye moo tax kenn du jaamu yàlla bu la nee yeewul fajar sax nga ne non garaawul quoi yàlla dina ma comprendre xam ne léegi laa tëdd si quoi maa ngi doog a jóge grand place ba ah te li ma ci jaaxal ñi wax loolu yëpp añ du jot mukk ba nga ne yàlla dina ma comprendre wala ndékk du jot ba nga ne yàlla dina ma comprendre reer du jot ba nga ne non garaawul gars yi réer leen yàlla dina ma comprendre ne moo koy da ngay raxasu ba ci pokotaan yi waaye jaamu yàlla rek ndeysaan ngay gis sénégalais yi soo koy def soo leen di woo sax ñu ne la non jëlal bàyyi nañ koog yow waaye lekk duñ ko bàyyi kenn naan duñ ko bàyyi kenn waaw moom sax bool bi bu sore ñu ne saa waay àndalal bool bi na jege si lii lan la nii saa waay tegal bool bi ci digg bi di commencé di lu xulli ay bët ndeysaan sama gars yi nee nañ dañoo demoon benn ngénte ñoom tamit du kenn duñu kenn raw leen ñu tegal leen ay ginaar xaw ma ay yàpp yàpp ñu jël ay kuddu benn waaye daal di raxasu ñu yaakaar ne da leen di dagal da dagg bi yàpp dankub ceeb dagg bi yàpp dankub ceeb baalewul kenn gars yi raxasu ji waaw ñëw mu nga kon mbokk jullit yi alaxira sabab la pour nit nekk ci lu baax ndax boo xalaatee lépp looy def ci àdduna dañ la koy fayee alaxira kon li ngay def day baax sunu problème yëpp mooy tey alaxira amul alaxira garaawul yàlla day yëpp gi rek dekkil ñëpp ne dugg leen aljanna gëm alaxira sabab la ci nit nekk ci lu baax ndax xam nga lépp loo def ci àdduna yàlla daf lay taxawal alaxira daf la koy fay waaye weddi alaxira sabab la ci nit nekk ci caaxaan waaye nit nekk ci lu bon ñëpp ñu ngeen di gis ci mbedd mi ñu nekk ci caaxaan nekk ci mbon soo ubbee seen xol yi doo fa fekk alaxira ndax ku gëm alaxira doo nekk ci lu bon waaw ku gëm alaxira ci lu baax rek ngay nekk guddi ak bëccëg kon mbokk yi ci gàttal lii mooy hidayatul ayat mooy ma yustafadu min al ayat ñaari aaya yi ñuy jël mooy aaya 91 ak aaya 92 mooy lii lañ ciy jàng sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa ma qadarullaha haqa qadri nit ñi day màggaluñu yàlla dëgg dëgg nuñ ko war a màggalee wa ma qadarullah haqa qadri ma azzamuhu taazim allaiq bi màggaluñu yàlla allahu akbar dëgg dëgg comme nuñ ko war a màggalee wala arafuuhu haqa maarifati xamuñu yàlla dëgg dëgg nun ko war a xamee loolu dëgg la nit ñi li tax duñu mën a màggal yàlla parce que xamuñu yàlla waaw nit li nga xamul soo ko xamulee doo ko mën a jox gëdd waaw benn waay benn jigéen yonente ko romb muy jooy ci benn bàmmeel yonente bi ne ko lan la mu ne ko sama doom moo dee sama benn doom yooyu ne ko muñal mu ne ko muñuma yonent bi ne ah daal di koy romb ba yonent bi dem gaay ne ko ya yow xam nga ki doon wax ak yow mu ne kan la ñu ne ko Seydina Muhammad la yonent yàlla bi la mu ne i kon di def naa musiba ndax li ma ko tontu ndeysaan mu dem dabi yonent bi wala ca ëllëg sa la gis yonent bi mu ne yonent démb bi ngay wax ak man xaw ma woon ne yow la yenent ne ko as-sabru inda sadmatil wala muñ ma ngi ca kuddu yu njëkk ya nga mbokk mu dee nga yuuxu ñu ne la noppil nga bañ nga yuuxu di bërëngu ba gaa yi jóge hôpital nga yuuxu di bërëngu gaa yi dugal ko ci morgue bi nga yuuxu di bërëngu ñu koy sang nga yuuxu ñu koy sang nga yuuxu ñu koy jullee ngay yuuxu ñu yóbbu ko armeel yi ngay yuuxu ñu suul ko ngay yuuxu ñu ñibbisi nga noppi c'est trop tard c'est trop tard kañ nga waroon noppi mooy bañ la nee faatu na nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne pat delloo mbir mi yàlla inna lillahi ma axaza wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ndeysaan inna lillahi ma axaza yàlla ñi mu jël moo leen moom ñim fi bàyyi moo leen moom wala yàlla ñi muy jël ku leen moom du ngeen ma tontu yàlla ñi muy jël moo leen moom di ku mu jël ku ci mën dara ku yàlla rey sa baay dama nga jël avocat nga xool ndax dina ñëwaat wala ku yàlla rey sa maam wala sa jabar wala sa doom dama nga jël ay avocat dama nga jël ay maître nga ñëw nga seet ndax dina ñëwaat dara nga ci munul ndeysaan ndeysaan ngis benn waay bu baayam dee ñu ne ko sawaay mu ne ah looloo neex yàlla ndeysaan looloo neex yàlla aywa moo tax yàlla yonent bi ne soo déggee mbokk mu dee waxal ñi yàlla jël moo leen moom ñim fi bàyyi moom moo leen fi bàyyi moo leen moom kenn ku nekk ci ñi mu jël ak ñim fu bàyyi dig la rek su dig bi jotee rek mu yóbbu la fekk jeexaloo doo dem waaw wasbir waxtasib muñal takkul ndeysaan loolu sooy jaale loolu ngay wax sooy jaale nit ku dee loolu ngay wax muñal te takku nga doog a wax yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko kon wa ma qadarullah haqa qadri nit ñi màggaluñu yàlla dëgg-dëgg nuñ ko war a màggalee bu gaa yi demee buñ demee tribunal kan ci ñun fii moo mës a dem tribunal nekk ci loxoom mës nga dem tribunal ak yow yow yow ñoo ñoo mës a dem fii tribunal mës ngeen dem tribunal tribunal waa ji buy ñëw juge bi buy génn am na benn dunguru bu fay nekk lu muy wax jóg leen ñëpp jóg mu ne simi leen baax na yi ñëpp sini mu ne portable yi fay leen ko ku sa portable sonné nañ koy def dañ koy nangu ñaata ci ñun ñooy nekk ci jàkk seen portable yi di sonné te ba ngay dugg tribunal bi ñu la nee fayal portable portable bi mu sonné noo def nga koo fay bi nga demee ci sa néegu sëriñ ci saal bi sëñ bi jóg nga koy nuyu noo def da ngaa raam simmi mbax na mi daal di ngurfaanu ngurfaanu ci suuf jox ko ñaari loxo daal di concentré wu bi nga nekkee ci jàkka ji néegu yàlla noo def wa ma qadarullaha haqa qadri màggaluñu yàlla dëgg-dëgg nuñ ko war a màggalee benn waaye dafa dëkk ak xaritam ñuy daje ci jàkka ji ñeent fukki at ñoo bokk jàkk benn bis ñu daje ci kër sëñ bi rek ci saal bi lañ daje rek mu mu mu mu tëdd ci kaw waa ji teg ko ci dënn bi ni ko ah saa doon fii mu ne ko man sëñ bi mooy sama sëñ mu ne ko bëgg naa la yow de bëgg naa la léegi nag nga dajeeg nit ci jàkk bëggoo ko ngeen daje ci néegu nit nga bëgg ko wa ma qadarullah xaqa qadri waa jooju kañ la ko waroon bëgg ba ñu dajee ci néegu yàlla bi nga ko waroon bëgg waaye nga dajeeg nit ci néegu yàlla bëggoo ko ngeen bokk parti nga bëgg ko ngeen bokk association nga bëgg ko ngeen bokk nga bëgg ko ngeen bokk nga bëgg ko ngeen bokk ngeen bokk waaye bi ngeen bokkee yàlla nga am réserve ci moom wa ma qadarullah xaqa qadri màggaluñ yàlla dëgg-dëgg nuñ ko war a màggalee ñaata ci ñun suñ leen di waxal yàlla du ñu yokk du ñu tiit du ñu jàq waaye boo nee sëñ bi rek ñu yuuxu paat di mbëkk ay di dof doflu ñaata ñaata wa ma qadarullah xaqa qadri màggaluñ yàlla dëgg-dëgg nuñ ko war a màggalee da ngay toog di wax yàlla guddeeg bëccëg ñëpp ne teg nga jékki-jékki dugg ci benn xissa kilifa diine rek nga dégg benn waay di mel ni si ndax buy kenn xamul lu ñuy niru te sooba léegi ñu ngi lay wax yàlla di la wax yonent bi bougé woo meek yëgoo dara sa yaram ndeysaan sunu borom wax na ci quran wa iza zukira allahu wahdahu iz ma'azzat qulubu alladina la yu'minuna bil axira fa iza zukira min duni fa iza hum yastabsirun yàlla nee na bu ñu may waxtaane nga gis ñi gëmul yàlla seen xol yi day lemu naan kii na gaaw a jeexal waay yàlla yàlla guddeeg bëccëg waaraate ngeen ba dee da ngeen tiital nit ñi da ngeen a soof paratatatata turu turu turu yàlla yàlla yàlla yàlla loolu ngay dégg ci dëkk bi waaw gars yi dañu mën dañ dañ soof quoi yàlla yàlla yàlla yenn saa yi nga gis ci koo xam ne day ñëw ci télévision wala benn rajo bi mu taalee télé bi rek mu fekk fa waxtaanu diine mu àndal mu changé scène bi mu fekk fa Wally Seck mu kal ko foofu ñaata ñaata ci ñun fii ñuy def loolu nga ñëw ci télé nga ni nii fekk kuy jàngal Alxuraan wala kuy waaraate nga àndal mu ñëw ci musicien wala théâtre nga toog c'est bon nañ ko bàyyi bàyyi ko fii ñaata ci ñun fii ñooy def loolu ba pare ñu ne ñun dañoo gëm yàlla dañoo bëgg yàlla waykat ba nee na innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku bëgg topp ki nga bëgg bi la ndaw si bëggee nga dem France ngeen dajafe mu bëgg la nga ne ko man maa nga dëkk ngin ngi neew su ma la takkee fa ngay sëy mu ne la nañ dem ah mu bàyyi dëkku ndeyam dëkku baayam bàyyi glace bi ñëw ci dëgg tàngaay bi daal di fay dëkk lu tax parce que def la bëgg wala innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku topp bëgg ka nga topp yow boo nee da nga bëgg yàlla te toppoo yàlla da ngay da ngay nax sa bopp kon yàlla dañ ko war a màggal mbokk yi yàlla dañ ko war a fonk dañ ko war a jox gëdd dañ ko war a xam dëgg dëgg xam lan moo tax gaa yi màggaluñu yàlla dëgg-dëgg màggal is qaalu ba ñu waxee ma anzala allahu ala basharin min shay yàlla de wàccewul ci mbindeef yi dara yàlla waxul kenn dara tey rek dégg naa ko ci télé bi benn politicien bu ñu invité muy wax ba ci daa ba ci yàgg mu daal ciy dugal yàlla waxul kenn dara baat boobu waxu kéeféer la waaw ku ne yàlla waxul kenn dara wax nga waxu kéeféer alxuraan waxu kan la ah kon kay yàlla wax na dara naka la yàlla di waxee alxuraan ñaata saar la 114 téeméer ak fukk ak ñeent nga yow nga taxaw ne yàlla waxul kenn dara te yàlla wax téeméeri saar ak fukk ak ñeent kon kay wax na bi doomu aadama yi taxawee naan yàlla wàccewul ci mbindeef yi dara keroog la doomu aadama yi génn ci màggal yàlla ala basar ay al insaan min bani aadama mbindeef moomu ñu ngi wooye doomu aadama te muy nit keroog ba mu taxawee moom doomu aadama boobu naan yàlla waxul kenn dara yàlla wàccewul dara amul benn téere bu fi yàlla wàcce keroog la doomu aadama boobu fas ci xolam ñàkk a màggal yàlla alxuraan waxu yàlla la yàlla yónni yeneen yonent yi yàlla yónni na lu toll ne 124 000 yonent ci kaw suuf si wa in min umma illa xala fiha nazir wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibu taaxut amul xeet wu nekk lu dul yàlla yónnee na leen ndaw yonent amul benn xeet lu dul ab yonent wéet na ak ñoom di leen waar kon yàlla subhanahu wa taala wàcc na ak ñun su fekkee gaa yi wax nañ la ne la yàlla wàccewul yàlla waxul ak mbindeef dara qul laaj leen yow muhammad wax leen ne man anzala alkitaaba allazi jaa bihi muusa waaw yonent boobu tudd muusa alayhi salaam téere ba mu yoroon ko ko wàcce ibrahima këyit ya mu yoroon daawuda téere ba mu yoroon waaw loolu ci kan la jóge qul laaj leen yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leen man ana kan anzala moo wàcce alkitaaba téere allazi ba nga xam ne jaa bihi indi woon na ko yonent boobu ñuy wax Muusa su fekkee yàlla waxul kenn dara téere yooyu Muusa indi woon téere boobu Muusa indi woon te mu tudd Tawraat téere boobu Isa indi woon mu tudd Injil téere boobu Daawuda indi woon mu tudd Zabuur kayit yooyu Ibrahima indi woon mu tudd Soxof ku ko wàcce kan la te téere yooyu kat la ca nekk mooy nuur leer moo ci nekk ndeysaan leer yàlla subhanahu wa taala mboolem téere yi mu wàcce ñaari mbir moo ci nekk leer ak njub moo tax gis nga ba muy tënk alxuraan def ko misaal juróom-ñaari misaal bi mu ci njëkk a wax mooy alxuraan lan la wasafahu bi annahu nuur yàlla misaal na alxuraan mu melal ko mu ne alxuraan leer la ban aaya la kuy indi aaya bi di nga am mont ban aaya la yàlla misaal alxuraan ne alxuraan leer la waaw naa ko bàyyi noonu ba suba waaw waaw am na benn boobu de ah am na beneen xad jaakum min allahi mu ngoog ñëw na ci yéen leer muy téere yàlla bi yàlla misaal na alquran beneen misaal bu dul leer mooy lan qad wasafahu bi annahu juróom-ñaar la yëpp ay misaal la yàlla jox alquran bee mu ne leer la beneen bi mu ne njub la hudan fan la ko yàlla wax baqara zalika alkitaabu laa rayba fii alxuraan njub la yàlla misaal na ko feneen mu ne shifa day faj banaay la waaw shifa yàlla wax na ne dëgg la wan la kon gis nga misaal yàlla jox alquran léegi nag bu fekkee ne yàlla lii yëpp daf ko wax ñun ñu bàyyi téere bi fële koo wax mu ne la ñun sunu maam lii la wax sunu papa lii la wax ñun sunu kilifa lii la wax ñu bàyyi njubal yàlla fan lañ jëm laaj leen kan moo wàcce woon téere ba yow Moussa indi woon kan moo ko wàcce te téere boobu la ca nekk mooy nuur leer waaye wa hudan njub moo ci nekk lin naa si ñeel nit ña moo tax chaque jour nit ñi dañoo war a xam ne dëkk bi du ñu mën a jub du ñu mën a baax lu dul ñu dellu ci alxuraan dëkk bi dëkk bi sax dafa tuuti àddina bii du ñu mën a baax lu dul dañoo dellu ci téere yàlla bi ndax lii baaxal nit ñi fan la ko yàlla def li ñuy baaxal ñun ñëpp fan la ko yàlla denc ci alxuraan moo tax bu ñu bàyyi téere bi rek alku beneen bu gën a garaaw mooy képp ku jàpp ne man mun naa fee bàyyi alxuraan ma topp diw ma jub yow génn nga ci islam te sànku nga beneen bi mooy képp ku gis ne njubal keneen moo gën a jub njubal Seydina Muhammad alku nga comme tey li xew da nga dégg ñu naan waaw ñun sunu kilifa gi lim fi def kenn defu ko ndax Seydina Muhammad sax dafa jihaat waaye diw jihaatul dafa woote ñëpp ñëw tukulóor yi ñoo naan annabi nuuhu kanko ndewa noddata nde ko noddi ko ina heƴee laana ko ari ko ina heƴee laana kono cheikh kaza diw ari tuddu turam kanko ndewo noddi nde ko ko ari ko nootimo ko heƴaane laana ko noon mbiyaton nde am ñu ne yonte yàlla nuu bi mu yàlla yónnee muy woote li ñëw di ko wuyuse feesul gaal waaye cheikh diw bi mu ñëwee di woote li ko topp ëpp na gaal léegi lan lañ bëgg a wax foofu mooy cheikh diw moo ëpp nuux garaat ci yàlla beneen bi mooy ñàkk a jàng baaxul li gën a dangereux ci àdduna mooy ñàkk a jàng wala nga jàng di dof doflu wala nga bañ a dégg texte yi ñu bari ci sunu kilifa yi dégguñu texte diine yi nuux xam ngeen lan la nuux xam ngeen lan la mooy sayxul mursalin mooy doyen yonent yi sayxul mursalin ñi yàlla yónni nuux mooy seen doyen bal sax dañuy wax ne ñun ñi nekkuñu ay doomu aadama ñun ay doomu nuux lañ ndax monde yonent yàlla aadama yàlla da leen alak keroog ba muy ca tuufaan ma la toppoon gaal ga ña yàlla jëloon ca gaal ga ñooñ ñooy nitu nuux yi mooy ñun ñii moo tax ñu tuddee ko aadama saani ñu ne nuux mooy deuxième aadama ndax ñi judduwaat ñi ñëpp ginnaaw tuufaan nuux moo leen jur kooku yàlla yónni ko mu dund alfa sanatin illa xamsina aman ñu koy tëkkaleeg benn sëriñ loolu mooy réer mooy jéem a comparer ñaar ñu àndul dàll yonent yàlla nuu dafa xej ci ñi dàllam laa wax xejul ci ñoom moo tax kenn du comparer diggante kilifa diine ak ab yonent kenn du ko def nuux yowmal xiyaam bu nit ñi sonnee dañuy daw ci moom ñu ne ko ñaanal ñu yàlla ban kan ngeen dégg fii ci Sénégal ñu ne yowmal xiyaam bu nit ñi sonnee dañuy ñëw ci moom boo génnoon laaj ko nag léegi nga dégg ku la tontu da leen diw diw waaw nga gis ku la xulli ay bët yowmal xiyaam day taxaw waaw gars yi ñeme nañ ñeme yàlla goo xam ne boo génnoon léegi di ko laaj nga gis ku la tontu. billaahi wallaahi taala sénégalais yi tey yegg nañ ci yàquteeg mbon ak xol yu yàqu ak ñàkk xam diine boo génnoon léegi naan yowmal xiyaam waaw waaw dañ koy woy sax dañ koy woy sax ci ay woy ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj di tëgg ku àndal ki ñu àndal lu la neex def ay la ñuy woy nga gis ñu yor ay sabar di ko tëgg ba fajar jot ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj dëng ba fajar jot loolu rek mooy woy bi ba fajar jot laa wax 10 heures ba fajar way bi loolu kese la di ko tëgg ba fajar jot allahu akbar allahu akbar yàlla de ba muy tagg saxaaba yi day daan ne du ñu nelaw daan ne kaanu qalilan min al-layli mu ne allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama mbokk yi kon mbir maa ngoog sunu borom nee na wa hudan linnaas njub la neel ñeel nit ñi téere boobu nga xam ne tajaaluunahu yéen a ngi ko doon def mu nekk qaratish jamu qirtash wa huwa ma yuktabu alayhi min waraqin wa gayru qirtaas mooy ay feuilles yu ñuy bind wala der bu ñuy bind bu njëkk ba yàlla li muy bindal yonent yi soo ko doon misaal keroog ba alquran di wàcc ci yonent bi ñu ngi ko daan bind ci ay der waaw aaye bu wàccee dañ koy bind ci der denc ko wala ñu bind ko ci ay feuilles daal di koy denc yenn saa yi ñu daal di koy bind ci ay xobu garab daal di koy denc loolu moo tax bi ñuy dajale alquran mu daal di yomb ci ñoom lenn ñu mokkaloon ñëw ak la ñu dencoon ñu daal di koy génn daal di koy dajale ñu daal di koy def kaamil bi léeg nga dégg ku naan yéen da ngeen naan bidaa bidaa kon loolu bidaa la ndax yonent bi muy dem bàyyi fi alxuraan ñu bind ko benn kaamil wala fu ñuy yóbbu bidaa loolu taxul ñu naan bidaa loolu dafa dimbali nit ñi loolu dafa dimbali nit ñi ci seen dund mu ne tajaalunahu qaratish yéen a ngi ko def ci ay bindukaay lu ñu bind ci ay der wala ay këyit mu ne tubdunaha ngeen koy feeñal waaye wa tuxfuna kathiran ngeen nëbb ci lu bare bare bare bare bare bare tubdunaha mu ne tuzhirunaha yéen a ngi ko feeñal léeg-léeg sunu borom subhanahu wa taala ca téere yu njëkk ya la mu wàcce woon ca Muusa lu ci ëpp yahud yi dañ cee teg seen loxo nëbb ko di firee leneen li lu leen neex mooy comme tey rek li leen ci julli di di def waaw soo nee sàngara aram na ñu ne déedéet ñun mën nañ koo naan am na koo xam ne mën na koo naan balaa muy egg ci putam mu soppi ko meew waaw wala diw day naan sàngara ñu ne waaw xam nga tax muy naan dafa moom dafay day wàññi leeram quoi leer gi lay wàññi waaw diw ban leer lam bay naan sàngara di wàññi leer gi ana leer gi anamu nga gis diw nangam lay def ñu ne waaw xam nga tax mu def noonu est-ce xam nga ko nga ni di man koy xaw ma ko moo tax may laaj ñu ne day wàññi leer gi wala moo ko sañ waaw moo ko sañ ñoom ñoo ko ñeme ñoom xam nañ li tax li ñuy def ñoom ñu def ko waaw waa ji dafa am 14 jabar nga ne ah charia maye lool mayewul loolu ñu ne waaw xam nga moom xam na moom xam na am na yenn yoo xam ne ñoom ñi xam mën nañ koo def am nañ ay ñaan yoo xam ne ñoom mën nañ koo ñaan yooyu ay caaxaan la laa wax amul kenn ci nit ñi ku ñeme yàlla ne nangam ba pare nga ñëw sànni loolu fële di def lu la neex képp ku def loolu ñaanal leen ko yàlla yal na ko yàlla delloosi waaye dafa tarxiis dafa tarxiis ñaari ñaari mag ak rak seen papa daa dee ñu jóge fi dem ziyaare ji seen sëriñ ci weeru koor ñu ñëw ñu toggal leen añ ñu ne dañoo woor sëriñ bi ne leen ñun fii ku fi bokk doo woor mag gi daal di añ xale bi bañ waaw ba ñibbi si añut ne moom daa woor loolooy fulla moom bu ko neexee mu bañ a woor waaye yow wooral ndax yow yàlla dalaa sant nga woor yow mal xiyaam boo duggee sa bàmmeel yàlla du ko jëli de yàlla du ko jëli wax naa leen ko démb li séeréer bi waxoon bi ko sëñ bi ne dinaa la yóbbu àjjana mu ne ko boo ma njëkkee dee fan laa lay fekk su ma la njëkkee dee foo may fekk sëñ bi ne tekk mu ne ko loolu yëpp dafa sori damaa bëgg nga jox ma caabi àjjana ma yore ko su ma njëkkee dem rek ma ubbi dugg boobay bu wóor xam nga li wóor mooy lan ñu ne la demal nga jaamu ji yàlla loolu kese la waaw may nit jën bis mu nekk nga koy may ji jën nga jàngal ko nu ñuy nappee jën moo gën su la gisatul mu dem nappi nit ki jàngal ko nu muy jaamoo yàlla nga bàyyi ko mu dem jaamu ji yàlla waaye nga jël buum rek takk ci tàng bi fii rek ngay nekk fii rek ngay nekk ba kañ loolu du diine lu ëpp ci yahud yi dañoo nëbb xam-xam bi nga xam ne moom la leen yàlla waxoon mu ne leen tub duunaha da ngeen koy feeñal waaye war tuxfuuna kasiran li ngeen ci nëbb ëpp tey mooy li ñu dal diine yàlla ji doo fekk mukk ñu def ay tànt bu fekkoon ne tànt yi ñuy tànt ci Sénégal dañuy fay jàngale diine yàlla kon sénégalais yi duñ mel nii ma waxaat ko ngeen dégg su ma ne tànt nag seen xel mooy yeggali li ci des ma ne baas yi ngeen di gis baas yi ñuy baas tànt yooyu ñuy tànt guddeeg bëccëg su fekkoon ne ña fay teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen doon wax yàlla ak yonent kon sénégalais yi duñ mel nii ñu mel da ngay gis ko fanaan ci ay jàng ba bët set ñibbisi jëleewu fa tarfatal ayin dara la fa jëleewul lu dul alkande gën a gën a réer gën a sànk gën a dugg ci mboy mboy gi yenn saa yi sax nit dina dana danay julli sax dem ci yooyu ñëwaat bàyyi julli nga wax ko mu ne man fi ma fanaan bii jeex na pare naa ci affaire yi la ilaha illallah nga fanaan foo xam ne dañ laa génnloo ci julli génnloo ci jaamu yàlla nga fanaan foo xam ne dañ laa gëmloo ne charia du dara keroog bi ma fanaanee kër ayub kër ayub ah ñu guddee nii ñu ñu luwe ay lal ak ay mat la tëdd nii maag doaat yi ma àndaloon am na fa benn animateur bu teg rajoom mu teg benn borom naan charia dafa yaraax charia du daf du dara dafa yaraax moo tax xaqiqa ñëw di ko defar ma ne ko wala qad qaalu kalimatal kufri de naka lañ naan charia dafa yaraax charia du dara waa ji yëmu ci loolu sax mu ne charia moo yàq àddina bi maa ngi fii sama portable bi waa ji ñu naan moo remplacé xaw ma kooku nag bi rayoon ki doon wax yàlla la xaw ma moom day gis yàlla xaw ma nu mu demee noonu dégg naa ñuy takk nag bi mu ne bàyyi leen ko nag bi day jébul nag bi ñëw dégg naa yenu ko ba ci kaw nekk ko rull ci suuf diri ko mu dee ki ko remplacé ma ma ngi fii vidéo baa ngi fii bu ngeen bëggee ma teg ko mu ne charia du tus julli du dara loolu nu ko jullit nu ko nit di waxe ku gëm lislaam nu muy waxee loolu charia du dara kon lan mooy dara julli du dara kon lan mooy dara moo tax chaque jour loolu laay wax ku yabo ci ñun yar sa njaboot conscientiser leen depuis léegi gis nga bu yàggee di ngeen gis ci Sénégal lu doy waar di ngeen xëy rek benn bis ngeen dégg doomu diw wala doomu diw dugg na ca caaxaan ya lu ko waral mooy am doom bàyyi ko noonu rek muy lafar lafar yi waxtaanoo moom defaroo xel bi defaroo pas-pas bi defaroo imaanam ba mu génn gaay daal di koy këf daal di koy dugal ci kufr dugal ko ci wedd yàlla goo xamante ne doo ci dootu ci génnati waaw te xam ngeen ne tey loolu am ci dëkk bi ay nit a ngi nii yoo xam ne sànku nañ cànk goo xam ne suñ leen yàlla doon yónnee yonent sax dootul tax ñu jub ndax alku nañu ba pare ndax doomu aadama bu gëmee ne julli du tus waa jaa ngi ni waa jaa ngi dégg mu ne ñii julli ñoo fi gën a bon mu ne ñi dégg mu ne ñi tabax jàkkee ak jumaa yi ñoo fi gën a bon gis nga dégg léegi kon fu ñu jëm su fekkee waaw ñu nekk jàkka yi ñoo fi gën a bon ñoo fi gën a yées julli amul njëriñ léegi fu ñu jëm léegi nag kii tey xale bu mu dajeel ba mu këf la léegi mu nekk sa sëriñ foo jëm ah bay nañ mbuur waaw ñu mel nii tey sawaay ku ñu këf sa njaboot ba dugal leen ci fan lañ jëm ëllëg yowmal xiyaam ak kanamu yàlla ah jàkka yee fi gën a bon julli amul njëriñ julli amul njëriñ du yéen a ko dégg am na yeneen yoo xam ne sax bu continué woon léegi ngeen génn jàkka ji wax yu bon yoo xam ne ne da ko a waaw mu nga chaque jour nga dégg wax bu bees yonent du référence chaque jour ñu wax ko chaque jour ngeen dégg nit ñi di ko wax kon mbir yaa ngoog diine baa ngi nii waxtaan ji daal mooy dañ leen dellu ci suñu boroom gëm téereem bi gëm yonentam daal di noppalu mu ne wa ullimtum ma lam taalamu ginnaaw ba ñu feeñalee lenn ci téere yàlla bi nëbb la ca bare bare bare bare bari borom bi nee na xamal naa leen lu ñu xamul woon waaw mu ne antum yéen ñii wala abaaukum du seeni baay borom bi jàngal nanu mbir yoo xam ne dëgg-dëgg ñun ak sunuy baay xamuñu ko woon loolu leer na nañ moo tax ñu war a góorgóorlu sunu kemtalaayal kàttan taxaw ci li ñu yàlla wax wa allamakumullah bi haza alquran yàlla moo leen xamal ci alquran bii min alxaqaiqi ci ay dëgg al ilmiya yoo xam ne dëgg-dëgg xam-xamu tawxiid la kennal yàlla démb démb ci guddi seetaan ngeen débat bi xaw ma 2S Selbé Ndom ak ñëwñu ah Sen TV la jërëjëf seetaan ngeen ko démb man dama kaa xool ba fi ñuy defee bre kii yi rek publicité yi ma dem tëdd parce que boobu zéro heure mu ngi jot naka la jullit di waxee man jullit laa ba pare waaye damay gisaane xam nga fii loolu mooy suñu problème man jullit laa ñu ne waaw mu ne waaye nag damay gisaane de ñu ne la islam day tere gisaane nga ne man mënumaa bàyyi gisaane man damay gisaane dama koy def léegi bul wax ne man jullit laa xanaa xamoon ne islam du yow li la neex islam li neex yàlla la moo tax yàlla moo ñu xamal ci alquran ay xam-xam yoo xam ne dëgg-dëgg xam-xamu tawhid la yàlla xamal ñu ay turam yu sell ak ay melokaanam su ko defee gis nga jullit bi bu jàppee ci alxuraan rek du réer tey li tax ñu réer mooy dañoo jàpp ci alxuraan am na ñoo xam ne sax pour ñu sànk la dañ naan la bàyyil quran bul jàng alxuraan de bul ko jàng léeg-léeg nga dégg ku ne ñii dañoo sopp ay xale yi ndaw nekk fi naan dañuy firi quran ñii dañoo sopp yenn saa yi nga dégg ñu alxuraan kenn waru ko firi alxuraan suñ ko firiwul nit ñi naka la ñuy jaamoo yàlla naka la ñuy xamee suñu diine naka la ñuy xamee li ñu yàlla sant naka la ñuy bàyyee li ñu yàlla tere sunu borom moo ñu xamal ci loolu ci tawxiid xamal ñu melokaanam moom yàlla xamal ñu ay turam yu sell yi waaye mu xamal ñu àllaaxira la fa nekk ci ay xéewal yu sax ak mbugal moo xam ne dafa metti loolu fan lañ koy jàngee mooy ci alquran bi suma amara rasul an yu jiiba ani sual après sunu borom subhanahu wa taala xamal yonent bi sant ko ne ko tontul laaj yi laaj yi nga xam ne gaañaa ngi la koy laaj aca tontu ko laaj bi mooy lan qulillah waxal yàlla summa antum zarhum fi xawdihim yalabuun xamal leen ne suñ la laajee tontu leen ne leen yàlla la haza jawaabu man anzala alkitab suñ la laajee ku wàcc téere bi koy tontu kan ma wàcc alquran dégguma dara de alxuraan ko wàcce yàlla tontu leen wax leen loolu su ma topp nag soo leen tontoo ba pare zarhum nga bàyyi leen fii xawdihim yalabuun ñuy xuus di xumbal ak a fuural ak a pojum rek di organiser ay mbapat ak làmb ba ñu dee dajeeg man damay conseiller ñëpp ñu yor téere bi nii surtout nag ñu yor français bi ñu noté ko bu ñu demee ñu xool aaya bi fii lu muy tekki summa hum summa zarhum fi xawdihim yalabuun bàyyi leen ñuy xuus rek di wax wax yu caaxaan rek di xumbal ak a fuural di organiser ay guddi di tëgg ka fecc ba ñu dajeeg man yow waxal rek li nga war a wax yow Muhammad suñ la laajee ku wàcce téere bi ne leen yàlla nga pare ci zarhum bàyyi leen fii xawdihim ay maa yaxuuduuna fihi min baatil nga bàyyi leen rek ñuy xuus ci seen caaxaan yooyu naan jullikat yee fi gën a bon ak jàkka yee jàkka yee fi gën a yées ak ah alxuraan du daraak nga bàyyi leen rek ñuy wax seen wax yooyu bul nekk bul nekk di sonal sa bopp gis nga lii la ñuy wax tasliya yàlla day dalal xelu Seydina Muhammad naan ko bul werante suñ laajee tontu rek ca dem nga bàyyi ma ak ñoom danaa leen jàpp kenn ci ñoom du rëcc yàlla yàkkamtiwul ndax wiiri wiiri bis a ngi ñëw xam nga commissaire bu soxlaa nit commissaire tey bu bëggoon jàpp suñu benn mbokk ñun ñëpp ñu am pexe dañ naan ko dawal suñ ko mënoon nëbb foo xam ne commissaire du ko gis nu ñuy def dañ koy nëbb foofu wala ah yàlla nag bu soxlaa nit say mbokk ñoo lay jàpp sang la ba nga set sang la yeew la ba nga mokk daal dem ba ca yàlla gas ba mu xóot dugal ko ne yàlla mu ngi nii indi lañ ko de ñun ñoo ngi ñibbi wala wala tey dañ ñoo ko fekke woon police ñun ñëpp dañoo dem taxaw foofu ba mu jeex ñu ñibbi si ah bu doon alaxira dañuy dem ba foofu ñu bàyyi fa waaju ñun ñu ñibbi si kan moom su am fi mbokk bu dee nekkati loxoom ku am fi mbokk bu dee ah yéen ñu yëkkatiwul da ngeen amoon mbokk yu dee yéen yéen ñooñu amoon mbokk yu dee bi ngeen leen yóbbee ba ci armeel yi ndax da ngeen faa toog di leen wétali bi ngeen leen suulee ba pare nu ngeen def ah da ngeen a ñibbisi fii ngeen toog nii ci biir jàkka ji ndax xam ngeen kooku ngeen suuloon foofu moom ci lu mu nekk kan moo xam ku mu suuloon néewam démb wala barki démb wala daaw néew bi ci lu mu nekk ku ko xam nekk ci loxoom kon nañ leen jaamu yàlla gars yi bëgg ngeen dégg-dégg kan moo bëgg a dégg-dégg mooy nañ jaamu ji yàlla bàyyi caaxaan loolu rek mooy dëgg yàlla gi nañ leen jaamu yàlla soo bëggee ay nit ne leen dem leen ngeen jaamu yàlla nañ bàyyi font yi yàlla fowul foluwul maa xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma batilan yaa leen asamaan si ak suuf si binduma ko pour fode di fo rek bu bii tasee rek nga dem ci bee toog rek ci télé bi di zappe taf taf taf taf taf ba quatre heures du matin nga tëdd yàlla nee na looloo tax ma bind asamaan ak suuf allahu akbar maa xalaqna alsamawati wal ard wa ma baynahuma batila afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha wa annakum ilayna fataala allahu almaliku alxaq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kon mbir mi leer na de su la gaa yi laajee ku wàcc alxuraan ne leen yàlla nga bàyyi leen nag ñuy xuus rek nag di xumbal nekk ci soirée rek waaw di xuus waaw allahu akbar zarhum fi xawdihim yalabuun bàyyi leen rek ñuy xumbal nekk ci soirée yi nekk ci boîte de nuit yi nekk ci sabar yi guddi nekk ci tànt yi di yuuxu rek ba ëllëg yowmal qiyaam bañ dajeeg man borom bi nee na wa haada lii kitaabun téere la boo xam ne anzalnaahu mubaarakan muy téere bu am barke allahu akbar wa haada lii lii nga tiim mu nekk ci say loxo lii nga yore tiim ko nii ñuy wax ngay dégg kitaabun téere la boo xam ne anzalnaahu man yàlla maa ko wàcc kañ laa ko wàcce ak fan laa ko wàccee ci kan laa ko wàccee ak nan laa ko wàccee kañ la wàcc ci weeru koor sahru ramadan allazi unzila fihi alquran fan laa ko wàccee ci ngën gi dëkk ci ngën gi mbindéef ci ngën gi guddi yàlla nga ko wàcce ci guddig laylatul qadr inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna anzalnaahu fi laylatil qadr maa ko wàcce ci guddi gu am barke guddi googu mooy guddig laylatul qadr guddi googu lu tax ñu ne dafa am barke tanazzalul malaika wa ruuhu fiha ndax malaaka yi sax dañ ci wàcc ànd ak jibril loolu moo lay wan ne jibril ku takk garaat la ci yàlla jibril malaaka la ba pare yàlla mu ne malaaka yi dañuy wàcc ci guddi gi kon doyoon na waaye mu ne ak jibril gis nga pour wan la guddi gi nu mu garaawee ah gouvernement bi sax dañuy ñëw nga ne tekk ñu ne la ak président de la république kon yëkkati nañ garaat bi gën naa kawe gën nañoo jox yi mbir mi yitte allahu akbar borom xam-xam yi dañuy wax ne guddig laylatul qadr sax pour ñu xam ne dafa am barke dafa am ay xàmmekaay bu ñu xëyee suba naaj bi du tàng ceeñeeri naaj bi du génn soo xoolee jant bi day mel ne weer du tàng guddi gi ngelaw li day ëpp féex allahu akbar lu tax malaaka yaa ngi ci mbedd yi dugg ci jàkka yi ndeysaan fekk ñiy julli naan leen salaamun hiya hatta matala il fajr allahu akbar jamono yooyu malaaka yi di wër fekk gaa yaa ngi ci ci soirée yi allahu akbar jamono yooyu malaaka yi di wër naan tanazzalul malaika wa ruuhu fiha jamono yooyu malaaka yi di wàcc ànd ak jibril am na ñoo xam ne ndeysaan ñu ngi ci seen lal yi di xarang allahu akbar oh ñàkk xam baaxul ñàkk jàng baaxul ñàkk xam islam baaxul ñàkk xam baaxul criminalité la réeral islam crime la billaahi te tey looloo li nit ñi sànq borom bi ne alxuraan wàcce naa ko ci guddi gu am barke inna anzalnaahu mubaarakan maa ko wàcce muy lu am barke gis ngeen xale bi demoon tey ba jël champion du monde alquran gis ngeen tey ñu ngi koy teral rek foo toll adduna bi dëkk bi ñaa ngi koy war rek di ko teral ah allahu alquran a ngoog ku ko jàng rek tedd ku ko mokkal nag waxtuñu say mbir moom jeex na texe rek texe rek ngay def waaw ndax am na aaya yoo xam ne du nekk sa dënn ngay dugg safara jamais jamais am na aaya yoo xam ne du nekk ci dënnu nit nit kooku di dugg safara kon aaya dañ koy lakk te kàddu yàlla la alxuraan a ngi noonu day aar nit yàllaa ci def barke foo dem tey ci àdduna bi soo mokkalee alxuraan rek nekk njiit foo dem nag gis nga arab yi ñuy tooñ ak di leen wax lu ñu leen di sikk sikk sikk soo ñëwee ci seen dëkk yi ñu ne la anta xaafisul quran nga ne naam keroog ngay jego keroog ngay tàkkali ko xiif ak marak tumaranke dan lay teral comme ni ñuy teralee ab yonent waaw lu tax hum ahlullahi fil ard ñoom ñooy ñooñu yàlla ci kaw suuf kon dañ góorgóorlu ñu yar ci sunu doom yi ñun bu fekkente ne yàlla nattu nañu mokkaluñu ko nañ fexe sunu doom yi mokkal quran démb maa ngi leen doon wax ne barki démb am na benn xale bu ñu jiite fii xale bi papaam dañ ko dóor barre de fer ci doq bi bët di gumba bi jabar ji amee doom bu góor mu ne kii dama bëgg mu nekk xaafizul quran xale bi barki démb mooy njiite fi yeneen ñeenti ràkk yu mujj yi kon nañu fexe sunu doom yi dem daara mokkali ci quran mbokk yi olof yi nee nañ boo amee doom da nga koy def weñ gu ñuul su màggetee mu nekk or déggu leen wax bi de boo amee doom da nga koy def weñ gu ñuul su màggee mu nekk or gis ngeen xale bi ngeen dégg ne dafa mokkal alxuraan dem leen ngeen laaj ko bi nga demee daara di mokkal alxuraan loo daj wala xale bu jigéen bi xoolal tey ci Sénégal ndeke am nañ xale bu jigéen bu mokkal alxuraan ba dem champion du monde jël troisième kooku waroon nañ ko teral de cey bu Kumba Gaw la jóge woon fële ak ak coupe du monde musique wala Viviane wala di nga ma jox tuuri ñu jigéen ñi man ñaar ñooñu laa xam de Titian ak kan waaw ñooñu tey bu ñu ñëwoon indi champion du monde lan musique kon dëkk bi yëpp dina tas kon télévision yi ministères yi députés yi sénateurs yi président de la république palais ah ñëpp danañ leen teeru ci yéen a ngi fàttaliku am na benn indo bu jigéen bu fi ñëwoon nu mu tudd vay vay de est-ce que fii amul ci yéen ñu ko teeru ji woon keroog Sénégal gi yëpp a génn di ko teeru ah te kooku jaamukatu xërëm la ab indo la gëmul yàlla allahu akbar keroog Sénégal gi yëpp a génn télévision yëpp def ko en direct ñu ñu indil ko limousine ndey jooram fees dal ak nit càmmoñ bi fees dal ak nit mu naan nii ñëpp di yuuxu di xëm keroog am na ñu xëm ndeysaan ndax lan benn indo moo ñëw Sénégal gars yi ñiy jàngi woon alxuraan bay ñibbisi ñoo jaroon teeru ji ba xëm ñoo ñoo ko jaroon waaye maa saf Sénégal moo nekk réew moo xam ne lu bon la ñuy yëkkati di nëbb lu baax dañ koy nëbb bëgguñu lu baax jóg ci kaw tey xale yii suñ leen mayoon ay 4x4 may leen ay ay kër air plus ah may leen ay billet may leen may leen rek la nga gis xale yëpp daw jàngi alxuraan laa moo tax nit ñi daw di nekk ji mbër ah lu tax nit ñi daw di nekk ji ay mbër parce que millions yee tax ak 4x4 yi ñuy maye kon li ñuy tamit tey gis nga bu ñu leen encouragé woon may leen lii rek da nga dégg xale yépp daal di fàq jàng ji alxuraan di préparer chaque année di si ngeen xam ngeen ren ñaar ñi ñoo demoon déggu leen dëgën di ngeen gis ñëpp waaw bismillah waaw mu nga kooku troisième la jëloon premier troisième kon loolu moo lay won ne Sénégal nit ñi bëgg nañ diine waaye dañ leen jàppalewul ci diine ci ah est-ce que am na ku fi jóge dem defi langue langue française daal di jël champion du monde coupe langue française indi ko fi Sénégal am na am na ku jàng Sénégal la français ba jël champion du monde ñu indi ko fi ñu ne kii moo fi dàq kii moo fi gën a dégg tubaab anamu ak waaw ah académicien am na fi waa gis ngeen ku jàng alquran jàng téere yàlla bi ndeysaan ñëw jël nekk champion du monde allahu akbar loolu rek doy na taranga kii dafa mokkal téere yàlla bi ndeysaan gaañ yàlla nañu yàlla may ay doom yu mokkal quran sunu borom nee na téere bii de maa ko wàcc muy téere bu barkeel waaye musaddiqun musaddiqu alladi bayna yadayhi téere bi daa ñëw di dëggal lépp lu nekk ci kanamam mubaarakun fiihi téere bi daa barkeel barkeem du jeex waaye musaddiqu alladi bayna yadayhi daa ñëw di dëggal lépp lu nekk ci kanamam di dëggal la nekkoon ci téere Muusa la nekkoon ci téere Ibrahim la nekkoon ci téere Isa ak la nekkoon ca Zabur borom bi nee na wali tunzira ummal qura maa wàcce ci yow alquran yow muhammad pour nga waar ndeyu dëkk yi ummal qura mooy ndeyu dëkk yi lu tax ñu tuddee màkka ummul qura lu tax ñu tuddee màkka ndeyu dëkk yi ndax màkka day lekk dëkk ya mu dendal dëkk ya mu dendal yëpp dañoo toxu ñëw tafu ci màkk moo tax ñu tuddee ko ndeyu dëkk yi ba pare moom mooy dëkk bi ñu njëkk a sos ndax kaaba gi malaaka yi ñoo ko njëkk a tabax après aadama ñëw après après après après noonu noonu noonu ba tey fii mu nekk moo tax mu nekk ummal qura ndey dëkk yi Makka mooy seen ndey mu ne waman hawlaha ndax waa Makka rek la ñuy waar wali tunzira maa wàcce ci yow muhammad alquran pour nga waar ummal qura ndeyu dëkk yi muy Makka waaye waman hawlaha ak ñi ko wër ñun fan lañ nekk ah waman hawlaha ak li wër màkk ñun fu nekk ci ñi ko wër lañ bokk ndegee kon alxuraan bi sax ci wàcc ci ñun la wàcc dafa wàcc pour ñun ñu waar ñi ci yenn saa nga dégg ko ne alxuraan arab yee ko moom ah ñun du pour du pour ñun waaye sant yàlla ba yàlla waxee waman hawlaha ak li wër màkk nañu waar waa màkk ak la wër màkk allahu akbar ndeke kon téere bi nit ñee tax mu wàcc pour ñu waar leen ci loolu rek mooy njëriñam wali tunzira ummal qura wa man hawlaha nañu waar ci téere bi waa màkk ak ñëwër màkka borom bi nee na wallazina gaañ a nga xam ne laa yuminuuna bil axirati gëmuñu alaxira yuminuuna bil axirati gëm nañ alaxira wallazina gaa ñi nga xam ne yuminuna gëm nañ bil axirati ci alaxira yuminuna bihi da nga leen fekk ñu gëm alxuraan waaw foo gis ku gëm alaxira day gëm alxuraan lu tax ndax alxuraan moo ñëw di ko feddalil di ko dëgëral di ko leeralal di ko bàyyiloo xel alaxira sànq indi nañ ci aaya yu bari foo fekk ku gëm alaxira day gëm alquran wallazina yuminuuna bil axira yuminuuna bi ku gëm alaxira rek day gëm alquran waaye ku gëmul alaxira nag ku gëmul alquran du gëm alaxira waaw sunu borom nee na gaa yooyu nga xam ne ñoo gëm alaxira gëm alquran wa hum ala salatihim yuxaafizuun dañuy respecté seen julli dañ koy sàmm dañuy dañuy sàmm seen julli wa hum ala salatihim yuxaafizuun dañuy sàmm julli gi respecté ko doo leen fekk mukk julli jot ñuy fo su julli jotee rek bàyyi nañ lépp lu ñu doon def dañuy julli ndax yuxaafizuun ñaata aaya la yàlla wax ne wallazina hum ala salatihim yuxaafizuun laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir yi lu ci gën mu ne assalaatu fi waqtiha julli ca waxtu wa tey ñun da ngay gis ku woor sawaay xëdd ba pare tëdd di nelaw benn benn soxna bu ma doon jàngal mu ne ma oustaz ma ne ah mu ne ma diw xam sama jëkkër xam nga barki dem lu mu def ma ne ko lan la def mu ne ma dafa yeewu fajar may wax ak moom di wax ak moom eh waaye del dem jàkk del julli ji koñ bi yow dong yow yaay góor gu fi dul dem jàkk mu ne may wax ak moom may wax ak moom ba mu jàpp ma kontaan mu ne bu mu jàppee ba pare mu génn ma kontaan ndeke waa ji daa génn ndeke dafa tardé bi mu demee ba ci buntu jàkka ji rek mu dégg ñu ne asalaamu aleykum léegi lu mu waroon def su doon yéen fii kenn nu muy def day dugg julli waa ji daal di delsi rek daal di xëcc mbàjj mi sàngu soxna soxna si ne ko julli nga mu ne julli nañ ba pare julli nga mu ne ko julli nañ ba pare xoolal kooku wala dégg diine bu bon bi waaye fekk naa jàkka ji sëlmal nañ mu ne ko waa léegi bu ñu sëlmalee doo julli mu ne ko bu ma yeewoo julli seetal ma lii mbokk yi yàlla subhanahu wa taala daf ñoo sàmmloo julli wa hum ala salatihim ku gëm alaxira gëm alquran day wattu julli daf koy respecté day sàmm julli nañu wattu sunuy julli bu ñu dara jaral bu ñu àdduna jaral julli jot nga nekk ci ay caaxaan foo mën a nekk bu julli jotee bàyyi lool ngay def dama nga julli foo mën a nekk nag su julli jotee bàyyi li ngay def dama nga julli ji bu dee liggéey la lu mu mën a doon su julli jotee demal nga julli ji lu dul ngànt yi islaam maye mbokk yi lii mooy sunu dars tey ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkente ne am na luñ ci war a leeral incha allah